te di la jox wàccuwaay wi la yàlla jox wax dëgg yàlla korona korona te nga noo dimbali ngir yàlla ak yonente bi korona noo ngi nii tëdd ngeen xëyee ba léegi soqi ko defun ko te lépp yaa nu ko teg wax dëgg yàlla yow danga noo gane si woon ngaan gi def nañ ko liñ man ak liñ mënut lu def nan ko ba jeexal tàkk nga lànk ni doo dem fa nga jóge woon corona teg ma dimbali ngir yàlla corona dem fa nga jóge woon sonn nañ liñ yoroon jeex na tàkk xam nga ne ku daan lëcc lëcc ba heure bu la neex ñu di leen tëral vingt heures te lépp yow a corona corona teg nga noo dimbali fa nga jóge woon corona son nañ ci yow amatul noonu la jox waa gars yi ñëpp a ngi danoo sóonu fi mu ne dara yorunu ah sarax nu rek ngir yàlla dellu ndànk rek dellul ndànk ndànk ndànk sa teeg bakkan wax nan la lu ne waaye ku dëgër boppam yow abala sax ne abala la tane ndax abala yàggu fi abala daa ñëw rek ñu coow ko mu dem yow coowul Sénégal li xanaa soofu la coow lii chaque jour ñu di la joobe xanaa soofu la day am ngor amal ngor dem fa nga jóge woon corona sarax na sonn nañ ci yow lan bawul ma